équipe dafa war di dugal ah non xool dañoo bëgg moom moo xam ne ñun xoolal dañoo bëgg di gagné suñu match yi quoi suñu match dañu ko war di gagné à bu ñu yoroon lu baaxul xam nga amul problème mais dañoo yor loo xam dafa baax lu baax li ñu yor nag dañoo war a dañoo war a imposer moom na wax booyee booyee nañu am fulla ak fayda ak jom Sénégal loolu la xamee quoi dañoo war a gagné suñu match maa ngi tudd Serigne Mbaye Gueye Ousseynou Seck. maa ngi tudd Babacar Bey. man maa ngi tudd Makhtar Niang. maa ngi tudd Martin Mangane. remplaçant programme bi na ko bàyyi te équipe ñi war a fubal xam nañ seen bopp gis nga a fubal chaque jour dañoo xam seen bopp équipe na teg ñi war a fubal di fubal remplaçant yi ñi war a fubal nañu fubal Sénégal bu ñu ko defee rek équipe day gagné. dafa jot maanaam Sénégal jël kan même bu ñu soriwul ci mondial mais kan bi dañ ko war a jël surtout nag ak li nga doon wax na sànq ci Aliou Cissé Aliou Cissé nekk koo xamante ni maanaam daf ñu war a dimbali ñun. xam nga di ñu tegal li ñu bëgg ba pare di imposer booy di wax ak ñoom booy yi booy yi boo leen yoree nga wax ak ñoom maanaam il faut nga am benn aal ak xarit ak rigueur boo leen imposer parce que amul ay affaires yoo xamante ni maanaam que ni kii star la wala affaire non non. mais dangay ngay imposer liggéey ba xam ne Sénégal lay liggéeyal xam nga dafa ko war a jaral maam muy xare comme ni ay moromam di xare parce que mënuñu d'accord ñu am ay joueurs baax xam nga ñeneen équipe yi nga xamante say adversaire ñoom leer na la yow li nga am ñoom amuñu ko ba pare à chaque yow bu ngeen demee ñoom ñu gagné la loolu loolu lañu mënul nangul Aliou Cissé taxawaay mooy fulla ak fayda parce que parce que potentiel bi ñi ko mën a def am nañ fi moo jël mi moo moo moo nekk kii Euh, mbay ñaa moo koy yëkku Franc mbay jaañ mur bi samp naa tir kon koy ñoom taxaw kon koy léegi taxawaay moo des potentiel potentiel bi am na fi joueur am na fi mais taxawaay bi nag mooy li des waaw mooy jom fu la fayda Aliou Cissé bon xam nga moom mooy entraîneur mooy coach moom moo nekk ak booy ku si nekk xam na sa forme fu mu toll kon dañ ko bàyyi ak liggéeyam rek te di wax ni li ngay ñoom dañ xam ni 14 millions Sénégal yëpp ñu ngi seen ginnaaw nañu bàyyi loolu seen xel te comme ni ñu leen koy bàkkee gaynde njaay mm-hmm. xam nga gaynde njaay moom du nekk ci àll ba day fàdd rek kon nañu jéem a fànn. entraîneur bi moom nañu wax di dëgg moom war équipe bi joué baax waaye moom xamul dara dara Aliou Cissé xamul. Ah, sëñ bi li nga wax rëy na de. dara Aliou Cissé Cameroun mënu koo gagné Cameroun ñëw nga mën ko équipe bi gën a baax équipe bi baax équipe Cameroun yow noo def ba ba romb équipe sax mënoo kooku entraîneur la koy def entraîneur bi wax na ko au début dañ ne dañ ne Sénégal ñooñu mën waaye duñu gagné loolu nii la nii la ko waral nañu dimbale te yàlla tax rek moom gagné coupe bi wala ñu dàq suñu équipe rek waaw bu ñu dàq sax gars moom bii baa moom xam nañu def mars ak suñu bande rouge xaarale aéroport bu ñëwee moom day wàcc moom day ñibbi xajal ñu suñu équipe équipe nationale xam nga comme li wax rek Sénégal moom muy si football bi si làmb ji lépp lépp lépp lu ñëw rek ay expert lañ ci parce que mun naa ni quatorze quinze millions d'habitants yëpp ay entraîneur lañ ñii dañuy ànd si lii ñii duñu ànd si lii c'est normal nag ku si nekk nag ak sa choix parce que kii am na ñoo xam ne dañu am seen journée la mënoon na dugal diw mënoon na génnee diw mais comme que moom mooy entraîneur te moom moom la ñu jox moom moo war a euh, classé mais nañ ko bàyyi classement rek mais Sénégal moom lépp lu ñëw expert lañ ci quoi waaw Sadio Mané daal dañ koy xaar moom Sénégal da koy xaar daal daa jot mu wane boppam nag. saajo Mané nag daa war a imposer équipe bi ñu ñu fubal gagné wala mu xa mu toog ci maa bi rek booy fubal mu jeex tàgg. Euh, compétition internationale taxawaay bu dëgër boo ko amul doo ko gagné waaw taxawaay bu dëgër boo ko amul doo ko boo xoolee Égypte na Coupe d'Afrique Algérie gagné na ko Tunisie gagné na ko même ñoom ñëpp euh, Égypte bi ñu ko gagné valeur yi mu amoon ñoo ko gagné. Nigéria bi mu ko gagné ñoom Okocha Amunike ñoom ñoo ko gagné même Sénégal lu tax effectif bi mu am waru ci mën a gagné coupe d'Afrique kon loolu moo des taxawaay bu ñu amee taxaw rek mën nañoo gagné coupe bi. te ñu wax ni gaynde yi nañu góorgóor rek te xam ne Sénégalais ñi ngi seen ginnaaw di leen ñaanal bu ñu defee fulla ak fayda rek incha allah dinañ mën a am ndam bi. entraîneur bi xam nga ne xamul dara mooy gàcce googu yëpp mooy ko teg ci télé bi léegi Coupe d'Afrique bii nag télé taal nañ ko ngir yàlla ak yonent bi nañu dimbale rek buñ gañee Coupe d'Afrique sax ñu dem final Coupe d'Afrique te war dañoo ko dañ ko war a gañe sax buñ gañewul coupe bi moom mën rek ñu xooli keneen